ça participe à vraiment apaiser, apaiser la, le climat. Et je pense que c'est à encourager euh, pour euh, maintenant revenant sur euh, euh, peut-être Aliou Sané. Sané, je pense que là, sommes de prison, quoi. N'est pas violent, quoi, tout comme, tout non. comme on pense en lui. Nous Oustaz Assane, franchement, oui. koy fàtte sax Oustaz dañ koy fàtte wax dëgg yàlla tamit. un prêcheur. dañ ko bàyyi ñibbi këram. day day ñaax nit ñi ci jaamu yàlla. Mm. bàyyi leen lii moytu leen yi lu baax rek lay wax. mais quelqu'un nga jàpp ko depuis boobu ba léegi. Mhm. mais bàyyi nga fi ñaata nit mais duñ ko bàyyi tamit mu ñibbi kër. c'est ça il n'a rien fait. il n'a rien fait ci benn société la dëkk di waaraate mais am na droit wax ci aussi li mu ci xalaat mais loolu kese ñu téye ko boobu ba léegi. tey ko prison yàgg na franchement il est temps tamit mais Mouhamed loolu nag yow tam yaa si war di ñu ci wax ba sonn. saa waay li mu wax dañ cee wax ba sonn dañ cee wax dox ci sax ñun sax dox nañ ci ba sore ci loolu. waaye ma mi alors que xoolal ñoom fekkewuñ sax. amuñ sax jaar wala kii ñu téye leen boobu ba léegi ñu ngi ci kaso bi mais il faut que aussi. ñu xool yooyu cas par cas pour mën a libérer nit ñi presque aussi kaso dafa metti saa soo tëjee li Ndeye Fatou wax dëgg la boo tëjee benn nit non tëjoo kooku rek mais tu enfermes tout sa famille ses relation ses amis mais ñooñu ñëpp ngay tëj parce que mm-hmm. ñooñu ñëpp ci xat-xat la ñu nekk donc vraiment nañu nañu kaso yu fees na mm-hmm. à la limite ni ñu fay dundee c'est inhumain loolu mooy dëgg gi aussi parce que boo gisee ku jógee kaso li mu lay wax yow sa yaram day daw paquetage. Hmm. waaw bu fekkee nag noonu la demee mais nañ xool ñi nga xam ne ils sont là-bas par erreur te mënuñoo génn dëkk bi mais ñu libéré leen vraiment. ah euh, Pouy. on pense à Oussa Seck. si si vraiment on pense à on pense à lui. nga fàtte. Seydina hmm. réew. Hmm. nii lay doxee. dañ ne euh, droit d'exprimer droit de liberté d'expression. liberté d'expression liberté d'aller et de venir nangam nangam ak nangam moo ne ci constitution bi moo ko nangu. Mhm. wax ku nekk baa mi loolu naqari da nga koy ñaxtu wala nga dox ko wala nga wax ko diin ko wax diin islam na boo nee ba gis lu dul dëgg boo ko kaasee fajuwut nga dox ci fajuwut nga noppeeku tey ñaan même kii bi la rek mais d'aller et de aussi dafa am liberté yow sa liberté fa mu yem ñeneen ñi sa liberté fa lay tàmbalee aussi donc ku ci nekk am nga ci loo xam ne da nga ko bokk ak askan wi te dañu wax ne Amnesty International Sénégal ak RADDHO ak Ligue des Sénégalais des droits de l'homme l déposé droit de marche hmm. de demande de marche pour Alioune Sané effectivement Alioune Sané boo ko xoolee comportement am rek macha allah man dama koy suivre lu ci bari nañ ko jàppee woon mooy dem na ci moment bi nga xam ne kii woon nañu Ousmane Sonko sa kese jaay barricade woon nañ ko gars yi def délégation dem état ne joxul sañ-sañ kenn dafay dem moom mu forcé ne day dem ci loolu lañ ko jàppee dañuy rappelé aussi fait ko jàppee yoon état moo ne fii waru faa dem tere nañ ko moom mu dem c'est normal son rôle et son comportement on peut le considérer comme un activiste pacifique en plus man dama koy suivre tey exemple comme mel ne Abdourahmane Sow bi nekk mais dama koy déglu y a gens yoo xam ne tu les écoutes da nga ciy jëlee xam-xam ak njàngat. discours yu responsable. yu responsable mhm. yu pacifique. tey moom li ko daal nii bañ demee ba àtte ko ba juge bi bàyyi ko mais procureur dafay représenter euh, l' intérêt civil l' intérêt moom moo defaat appel dañ ko téyewaat tey ku nekk nga koy naxarlu parce que kenn du yéene kenn kaso mais li may wax rek mooy. ñett ñi nga xam ne ñoo def seen demande de marche ba ñu nangul leen ko politiciens yi ñoo rax si moo tax des na da ngay naan société civile bu Sénégal doo ko mun a ràññeetle parce que tey ñett ñi déposé droit de marche muy rado muy na et cetera am na moment yoo xamante ne mois chaotique yu critique yu Sénégal nekkoon ci ay émeute ñuy taal dëkk bi di toj di yàq di jaxase di taal ay kër jàmbur mais dégguñu leen ñu ciy wax. y avait un mutisme total ba ñu bëri naan est-ce que société civile bi ils ne sont pas complices wala bu ñu génnee joxe kàddu kàddu bi day ku ko déglu da ngeen dafa jéng am fu mu far te société civile war ta far bu ñu jëlee historiquement ce qui s'est passé de deux mille vingt trois euh, deux mille vingt et un mars mille vingt bi ñu nekk. Hmm. mais ku ci ci Pando ngay ne mais société civile bi fan la bokk opposition la. wala dañuy couvrir ñi nga xam ne ñoom ñooy yàq mosu ñoo prononcé wu ci li nga xam ne ñu ngi koy yàq ci dëkk bi et pourtant c'est l'intérêt des Sénégalais mais tey ji buñ demee ba dépose demande de marche tey bu ñu ko bañaloon mais coow bareeti mais on na une société civile boo xam ne pratiquement s'il s'agit de fuger le pouvoir et de jeter des pierres dans le camp du pouvoir mais ils sont très à l'aise mais au moment où l'opposition radicale doon woote yenn appel yi yenn discours yi mais cette cette cette société civile était tellement muette noppi moo tax ñuy wax naan doo mun na xam ñoom ci ban casquette lañ féete woo et tey lii ñu woote nii mais ñëpp lañ ciy fekk si parce que droit citoyenneté ku ne da nga am droit xeexu ndax bu la da boo ko xeexalu nit ëllëg mun naa dal sa kaw yàgg nañoo jël ay demande de marche état di ko rejeté parce que dañuy régime déclaratif la dañuy déclaré mais ki ngay déclaré ti ko soumettre sa dossier en tant que autorité bi validé moom mooy xool yoon bi nga xam ne moom est ce que moom boo fa jaaree dina andil gàllankoor askan wi wala dina andil gàllankoor yenn sànc yi nga xam ne état bi mu ngi koy liggéey ku ne gis na ne place de l'Obélisque BRT bi fa lay jaar te ñoom chaque fois seen demande de marché foofu la te BRT bi saa su ne le day jël ali bi wax ne tey boo fa demee la fa ne ci ay matériel rek marché bu débordé mais ay casse la fiy jur et la preuve BRT bi tey bu fekkonte ne marché yi doon am ci dëkk bi débordé wul mais kenn kon BRT bi inauguré nañ ko bu yàgg il a fallu que ñu yàq BRT bi yàq gaar yàq li ñu fa waroon defaraat lépp ba ñu puusaat ko parce que mois ou deux mois ci kanam donc il faut aussi essayer de comprendre aussi le pourquoi l'autorité qui valide les marches et qui les autorise des fois le refus d'accepter les marches day tombeek moment de tension boo xamante ne Sénégalais yi kenn bëggutul sax marché am dañuy dëgg na te yàlla tax mais tey ku ne santé na y' a un y' a un environnement d' apaisement y' a un environnement de calme mais tey marché bi ñëpp a ci kontaan ñëpp ci dal et que on lance un appel à l' état du Sénégal que mu def le maximum possible do Alioune do Alioune Sané kese y' a des yoo xam ne ils sont là aussi defuñu dara comme li Serigne Niang wax dañ leen boole boolewaale ci manifestation yi parce que. gis nga li ñu naan moo tax ay du yem ci boppi borom am ay du yem ci boppi borom yàlla buy mbugal day xëy raaf lépp su demee yombal xeex mu segg ñu baax ña. d'accord ber jël ñenn ña teg. mais on parle de prisonniers politiques. Mm-hmm. qui sont les prisonniers politiques. la société civile qui dit dans les prisons il mille soixante et quelques prisonniers politiques mais on n'a pas mille et quelques soixante prisonniers politiques dans les prisons il la quasi totalité des gens yoo xam ne tey ji jàpp nañu ci biir prison yi mais li fi amoon la BRT bi ñu ko yàq bu ñu leen filmé identifié leen jàpp leen di leen di yóbbu teg leen ci kaso bi am na loo xam ne banditisme la am loo xamante ne terrorisme la ñooñu ñëpp dañ leen a jël jàpp leen dugal ci biir kaso bi buñ ci bëgg a boole ki nga xamante ne deful dara délit d'opinion bi nga xam ne offensé wul wala offusqué wul wala poussé wul nit mu def naka su dul noonu wax idem ci wàllu politique kooku mën na jàpp ne c'est un détenu politique mais on ne peut pas prendre des yoo xamante ne mais ils ont terrorisé ce pays presque pendant six mois yoo xam ne loo tourné ci réew mi tel tel gi yàq gi di bari ñu jàpp leen. mu ah ngi leen yóbbu ci yoon pour atte parce que ils ont détruit un bien public. Mm-hmm. après on veut classer comme des détenus publics. Euh, politiques oui c'était juste un de table très bien alors ñu dugg ci thématique bi dëggantaan Ndeye Fatou wax ci diffusion euh, de compte rendu de la situation sanitaire bu Ousmane euh, euh, Sonko procureur mi